jërëjëf mbokk yi ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen siyaar yéen ñuy suivre seen site internet fu waay nekk rek si réew mi ak si bitim réew tey nag ñu ngi taxaw ak armée koy yëngal armée yaakaar naa ne borom jëm ñaajo borom deeni biram ndaw ñëpp xam ko mu mujj fi digganteem ak be ama daan ko avant loolu bëri nga Fourrière daan ko bëri Hercule daan ko nga bëri ak Tmax combat bi am coow Tmax euh, ngeen def action arbitre ne yaa jiitu ñu dem xooli VAR ñëw confirmer victoire u Tmax jox ko ko mu ñibbi Grand Yoff tey nag ñu daje yow fii CNG xamuñu lan moo ko waral dan lay nuyu rek bàyyi nga nuyu say mbokk ñu jublu ci liggéey bi. waaw moo daan ñu ngi lay fay ginnaaw bi ñu sant yàlla julli seen sant suñu ñaari waajur xam nga ñoo nuyu waa Diamniadio waa Dén waa Thiaroye di leen bëgg bu baax baa baax yéen waa Gaston production waaw noonu la demee. loo ne waaw ñu sant rek ñooy si kawam di dormir daanu ah. Mm. yee noonu demee. naka keroog euh, dimanche passé. waa dimanche passé moom xam nga liggéey nañ li ñu war a liggéey yëpp. xam nga ñëw waaj xam nga ñëw biir laamu ji tamit mais ñëpp gis nañ ni mu demee quoi. waaw erreur de arbitrage arbitrage la te arbitre ay nit lañ dañuy juum quoi. waaw gis nañ dañoo juum bu baax a baax a baax si kii bi moo tax tamit def nañ li ñu yoon may. muy recours bi quoi toog di xaar suñu victoire incha allah rabbi. bala ngaa ñëw ci lii la yoon may. Euh, ah, adversaire bi nga jël bi arbitre bi sifflé nan nga bëri ak moom Tmax. waaw parce que man arbitre dafa noonu sifflé rek ma tàkk si kawam mais sama gars yi ñoom ma déglu ko si laa ko benn une minute ma dox si kawam. waaw ñu xeex ma dóor ko benn coup ma xam ni kaaw na après moom si la ñëw songu songu bu baaxul ma génn ko waaw si la wax jàppee centre ko quoi. centre bi sax mënoon naa xaar benn quelques secondes ba gën koo dajale. waaw ba gën ko dajale soo ko tourné. waaw mais pour l'instant noonu maa naan te teemax bi mënu ma ko quoi parce que man xale laa waaw moo tax ma téye ko rek xam nga def action bi. waaw mais bi ma tourné ak moom moom dafa dóor fees bi nii ba toog après soog mu mun jàllale quoi. waaw noonu la demee après nag ñu taxaw yeneen ñaari juges yi tamit ni ko euh, dañuy bërewaat quoi parce que kii dafa door fees kii dafa door kii ba Sitor moom ci boppam dañuy fëgg leen seen suuf si da ngeen di bëriwaat ñun ñu commencé fëgg suuf si ba ma dem sama kosi ba mu sottil ma ndox teema si tamit ñu sottil ko après Sitor dem ci VAR bi te li mu gën a metti VAR bi tamit yàggu fa dafa dem taxaw ci VAR bi quelque temps rek ñëwaat dugg suñu diggante pour man day sirwaat pour ñu bëre mu yëkkati loxo teem ak si nga amateur yëpp ñëpp xam nañ tamit bu ñu joxul armée victoire dañoo war siflaat ñu bëre mais du yoon ñu jox teem ak si victoire waaw moo tax samay supporter tamit keroog meruñu quoi dañoo dem zible te xam tamit seen mbër daanuwul quoi. Hmm. ok mais mais ci biir takk bi ñu bëri dañu wax ne armée bu ngéwél dafa mënut a bëre ci biir takk bi gis nan ci biir takk bi def nga li nga xamante moom la bërekat yi def mais le fait que Tmax rëcc ci takk boobu noonu ba naan te Tmax daan na la wala armée daanuwul foofu la amateur yi gisé ne booy bi est-ce que bëre bi desul. waaw loolu moom du yoon quoi parce que loolu noonu maa ngi si jégalu amateur yi bu baax a baax a baax. waaw parce que xam nga action boobu boo ko amee da koy dajale. naan mbër wër la fi ndomba nga rëcc ci. waaw demee parce que armée ndaanaan la armée boo ko fekkoon contact nga xam ne armée li muy contact ak li muy mbapat bëreegu ko sax. Mm-hmm. billaahi mais xam nga rek keroog moom lamb bu nekk ak ni muy demee parce que keroog xam nga rek bi ma ko takkee ba tourné ko. Mm-hmm. waaw pour man moom lamb ji saye moom. waaw bi ma ko takkee moo tax bi may bi mu yegg suuf sax dama xaw a bàyyeeku. Mm-hmm. waaw noonu la demee mais après nag si la dóor fees bi après si la ma tourné quoi. waaw noonu la demee mais man xam xool naa ko xam ni moom dóor na fees man ma soog a yegg waaw instant boobu noonu tamit maa ngi naan arbitre sax dina ma jox victoire wala mu sifflé ñu bëre quoi waaw moo tax temas bi ñu ko joxee victoire bi sax gëmee ko sax temas bi bëri waat la woon xalaat wala ñu jox ma sama victoire man moo tax affaire bi keroog amateur yëpp la bett amateur yëpp la metti tamit quoi waaw VAR bi tamit contesté wu ma ko quoi baax na fi trop mais dama leen ñaan ñu dolli seen matériel yi caméra yi yokku ñoom ay drone ci kaw yoo xam ne nañ mën jël action yëpp te site bu amee ñu jël seen temps benn deux minutes xool action bu baax a baax a baax parce que joxe victoire dafa garaaw quoi waaw maa ngi wax côté boobu ñu bàyyi ci xel bu baax parce que ñoom suñuy kilifa lañ waa CNG. yaa noonu la demee. le fait que aussi tamit Tmax bi la daan est-ce que du xeebeel ak umpale Tmax taxul maanaam nga xaw koo xeeb ci digg géew bi parce que ndaanaan la. waaw ndaanaan la quoi waaw parce que man boo xoolee Tmax man xale la Tmax boo xoolee mag dama benn 6 ans parce que moom moroom dab daan la waaw bu ma ñëwee ci géew bi taxaw ak moom. dama jàpp ni kii waruma def ak moom deux minutes amateur yi di ma xeeb moo waral ma bëree ni ma bëree waaw mais bi ma ko jàppee moom su ma taxawoon benn une minute gën a dajale takk bi su ma tourné moom leneen la ñuy wax mais ay pas daan na wala daanuwul quoi waaw noonu la demee. ok génn nga ci combat boobu nag instant yi yaakaar naa ne coow li démarré waat na armée cible am fan la. waa cible bi moom maay toog rek di déglu sama grand Laxat Ndiaye ak maam Ñaaw Ciss waaw démb am na ñu ma woo tamit xam nga di ma proposé tonnerre tonnerre bu yëmbal quoi. man meen waaw tonnerre am ñu ma woo ngeen seen musiba ma woo di ma ko proposé xam nga man leen bool nga seeti jee mu pare rek man pare naa pour bëreek moom waaw bu dul moom tamit xam nga sama moroom yi fi nekk ak yenn grand frère yi man mën a may chance tamit ñu may chance ñu bëre mm. waaw parce que man mbëru gox laa te su ma jugee ñëpp may topp xam nga billet 3000 nga jël 7 bolok xam nga muy nga jël combat bi muy 2 millions 100000 moom laa waan versé léegi ci biir xam nga Abdoulaye la ko desul dara Abdoulaye Ndiaye dama bàyyi ma mooy ci biir xam nga mbër buy jaay lool ci ay bloc moom euh, waroo di taxaw sax di semé ci combat moo tax boobu léegi promoteur yaa ngi may woo tamit. Mm-hmm. waaw mais maa leen déglu rek. Mm-hmm. yaa noonu la demee. mais instant yi grand frère nga wax ba tey say morom des na parce que boo génnoon ci Tmax mën nga laal grand frère yi mais instant yi say morom ñan nga fi war a bëreel. ah yow mais limal man booy xam nga koo fi lim muy tëb di dal di la essayer naan diw moom mooy laaj te fekk sax yaa ko raw yaa ko bu coow. Mm-hmm. waaw mais instant yi yëpp xam nañ ma làmb bëgg na ma tamit. moo tax ama droit lim sama benn morom grand frère laa lim rek pour ñu may ma sens. Mm-hmm. waaw mais sama morom koo ci lim tamit ku jaar yoon man la làmb la dañuy bëre quoi. Mm-hmm. Cheikh Super Jamono Mamor lu fa xew. Cheikh Jamono ak Kële. Mamor fa xew. Cheikh Jamono ak Brise ak Brise de lu fa xew. waaw loolu tamit ay làmb la Cheikh Super Jamono moom am na dox suñu diggante quoi man ak moom góob ma ni làmb dinañ boole. waaw waaw noonu la demee. ok Sako euh, euh, Balde ak Mathia lu fa xew. waaw boobu tamit sama samay adversaire ñooy fa quoi Sako Balde Mathia bi. waaw samay adversaire ñooy fa. lu fa xew dàqu lu fa xew dàqu ma ko de. ndigal wës jàmbaar. waaw boobu laa gën a bëgg sax. kan nooñ laa gën a bëgg. ak bëgg nga sa musiba de. laa ñoom laa gën a bëgg ak alburi kéwal. <laughs> alburi moom sama sama doom ndey sama deret la sama lonko la. Ah. man moom duñu bëre mais kéwal bu génnee ci combat lu fa mën a xew pare naa tamit pour bëre moom quoi. ah mais kéw budul budul budul kéwal tamit bawal am nga fay adversaire xanaa. bawal mais comme kan xanaa Bour Sine. Bour ooy gaynde mer la fanaanoon de defal ndànk. man tamit moo loolu de instant man chaque jour damay mer victoire rek lu mën a xew damay mer chaque jour waaw bu ñëwee ñu bëre de instant yi pare naa pour bëre moom te bu ko bëggee suba suba promoteur yaa ngi may contacter bu ñu ko seeti jee bu raisonnable rek ñu bëre quoi. bul gis na ñaa bu ndaw leen boole daan rek nga naan kii bursinde bursi neexul dara de booy. non man ak ñoom duñ benn barki Nabil Moustapha xam nga te na lu ma doon waaj fan yëpp di bëgg ko muy génn réew mi yàlla def na ci sutura quoi. waaw incha allah rabi su ma génnee ba ñëwaat. Hmm. ah dinañ xam ni gars yi doon nañ génn mais génn yi des na de. comme que fii lay toog di ñëw ñu naa kaa poids bi. yàlla xam na ne su ma génnee dem Europe ba ñëwaat. Mm. ah dinañ xam ni armée ñëw na quoi. ok yeah la demee. mais mais Siteu bu Saloum tamit loo loo ci wax parce que Tmax boole na leen bëre na ak Boy Sine aussi tamit bëre ak Dégol bu Ngoy. waaw waaw Siteu bu Saloum moom daanaan la parce que moo jiit si làmb def na ci lu nekk mun ñu ko bañ ci làmb mais bëgg nañ lu ko gën quoi xam nga parce que bi yaakaar naa xaw na dem 22 waaw noonu la demee te booba léegi ñun def nañ fa ay jéego marqué nañ ay empreinte quoi waaw bëgg naa lu ko gën trop hmm, noonu la deme ok euh, euh, euh, sa nuroo waale tamit am na combat de moom moo Modou Xarañ Lo booy ñaa loo si wax ah waa ñaa sama deret la sama waay la waaw lamb jooju moom xam nga rek damay féete quoi moom laa ñaanal ndam suñu borom defal ko ndam bu gaaw billaahi parce que moom dafa bëgg waa dañuy sëdd ah, la dafa bëgg waa jëm ñaaye safoo leen quoi mm. ah, ñaaru toog benn quelque temps te ñëwul jëm ñaaye ne moo leen waaw noonu la demee maa ngi koy béggee bu baax a baax di ko ñaanal ndam di ko wax mu teg ko ci yoon rek mm-hmm. waaw bu koy teg ci yoon ñooñ ñoo bu nekkul ñoo koy teye ko mm-hmm. mais mais Modou Lo la am du xarañ loo loolu daam si rek roi des arènes non xarañ la am mais ñaa neexul daan de mm. barki borom Touba moom lépp da koy teg ci yoon mm. waaw te lépp da koy calculé mm. am na noo koy attaqué bu baaxul daf lay daan facilement te moom bu la jël see tamit néew na muy rëcc quoi waaw ndaanaan la de na xam ni am na làmb bu ngand ngand bu musul am ci àdduna waaw parce que ñaa ñaa bu am doole rek man ragal ma xoog benn mbër. waaw ndaanaan la quoi. ayca armée ma bàyyi la nga tàggoo. waa tàggoo bu moom xam nga rek di leen bëggewaat di bëggee axlu làmb yëpp xam nga di bëggee tamit mère Ami Sène hmm. di yaay Papa Yada numéro 2 bu Tëngéej waaw kooku sama yaay la quoi mère Ami Sène maa ngi koy bëggee bu baax a baax a baax a baax xam nga gis naa ni may taxawoo gis naa ñaan yeeg yëpp waa di ko ñaanal rek yàlla na fekkee sama njariñ li ma ko yéene yëpp xam nga yàlla mottali ko quoi Ami Sène hmm. waaw di bëggee waa Jam ñaajo waa Déni Biram Ndaw waa Caaroy waa den bi ram ndaw ne maa ngi bëgg ñëpp xam nga ASC Lagret bi xam nga waa jameek bi ñëpp ñëpp ñëpp su ma limee rek damay juum sama père Ndonga saari Omar Gueye Junior xam nga Papa Niang Ibra Kebe xam nga maa ngi bëgg ñëpp di bëggee moo saari Dieng tamit Nokia ñoom boggal Papa Ndiaye Mar Gora Seck ak suñ président écrit tamit Araw Mohamed Mbaye ñu ngi koy bëggee bu baax a baax a baax a baax waaw di bëggee monsieur le maire Moulaye Gueye ñoom Aziz Mbeng Gueye Sow ñoom ñëpp bëgg nañ bu baax a baax jërëjëf ok armée bu Ngéwél lan dalaloon tey di leen jox di dajare ba beneen yoon ci Gaston prodution